bismillah Mbacké bismillahi rahmaani rahim allahumma inni anhaytu tahayyu'i ila ma tuhibbu wa tarda haqiqatan bika fi yawmi sabti ci la ko tedd ki waxee ni illa bi nabiyal xasda fi basatini uddimul xasda ci bisu gaaw bi ci la waxee ni itam hurubu ahli badrin al usudi axsadi adaaya wa nafat xasuudi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 ab seex nga wala mu cëral la dara dila ko liggéeyloo mo xam ci tuubaa nga nek wala fo mën nek nekk dinañ la taxawat yow naduhu kullu unasin bi imamihim laaj la mila cheikh mohammedul muntaxa bañ ko jiitalee ci muridiya ko tedd ki ko ñu la ci li lu donon sa taxaway ñun ñepp dañ ñukoy laaj motax ñu japp ni don na rafet ci ñi ko gën a jege ak ñi muy liggéeyloo ñëpp def benn dànk xool njabootu ku tedd ki kër gu ca nekk taaw ba bu munte ñëw yebal ka mu wóolu mu teewal ko ci sëñ ba ñépp teew fa ñu ni ko réew mi nit ñi ku tedd ki dafa yërëm jaam ñi ba loolu ko fi indi fii loolu ko indi ak duniya mu waxe ko nu nekk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 ñeneen Serigne Touba lañu yaakaar te nëbbuñu ko am na ñu ko yaakaar te feesaluñ ko waaw waaye l'islam bépp Serigne Touba bi muy ñëw fii yeesal l'islam moo ko fi indi fii ak sowe jaam ñi amara ni rabbi bi am usarreha bi anna ni malazun wa mafzun fa man arada alxayra fii kilta yi daari fa fal bi bii ñooñu bu ñu dajaloo ci sëñ bi ñu xam ne kër yëpp ñi Serigne Touba jabati ñëpp ngi fi